Sport TV, merci encore le gars de la confiance renouvelée. Hein. Merci de des likes, merci de des abonnés, merci également de baisser les commentaires. Un plaisir les gars et chaque fois de partager des informations inbox sénégalais fait faut les maintenir 14 régions du Sénégal. Rukru khadi en gogo khadi ñing leen di jaajeufal ñi nek également ci l'hôpital et ci kër te di fébar yalla na suñu borom fag seen bop ñew rek jamm ñi nek ci kasso yi xamné aussi erreur judiciaire gi ñeen defal mo leen fa yobbu gars yi suñu borom delu leen fédéral wal leen seen jappot ñi delu aduna suñu borom xal leen fi do gars yi te yexé ñu on avance ensemble dans la magie de Sport TV l'actualité en continue gars yi actualité bi nañu fas yéene waxtaanee Sadio Kaiser magnifique maanaam demam du côté de fi nga mooy ci Al Nassr ñaata la fay am lan moo ko fay fekk ak ñu daal leen koy indil ay leeral rawatina également tàggoom bi euh, moom daal gars yi dafa duma dafa duma duma ki nga xam ne mooy Errol Spence junior joo ne jóge na moom dañu woon day waaye dafa mujjee yomb ci nga xam ne donc Terence Crawford parce que waa ji plus fort que son adversaire ki ngeen gis ni nag gars yi Maroc la donc Maroc nag moo coréen hein, c'est un deuxième match donc mon nekk première victoire dans l'histoire de la coupe du monde mais aussi mon première fois dans l'histoire du football féminin ci euh, coupe du monde Jigen daal di fay ñëw kolo et tout di également Jigen ñiy football ci kolo mu ngeen ko demee hein, def qui hein, nga kii di également l'entraîneur Hervé Renard mon moo le premier entraîneur de l'histoire boo xam gagné na coupe du monde ak góor ñi victoire am aussi victoire ak coupe du monde ci donc mon le premier à avoir réalisé cela waa Paris Saint-Germain nag dañoo daal di dàq ki nga xam ne mooy donc proposition bi wa euh, Arabie Saoudite notamment Al Nassr def pour ki nga xam mooy donc Marquinhos dañoo lank ba tëdd xam ne mooy donc Marquinhos ci xam ne mooy donc proposition bi ñu leen defal ki nga xam également mooy Scamacca ah Scamacca nga xam ne moom daaw Paris Saint-Germain da ko bëggoon jënd ren mu dem West Ham daaw donc fi ne nag waa AS Rome ñoo koy récupérer prêt avec option d'achat pour l'attaquant italien bi nga xam ne nag Mourinho da ko def priorité ci mom ki nga xamné gal mom moy Yann Sommer Yann Sommer également fi ni mom ci côté de l'Inter de Milan lay daal di jege ji Inter daal moom la daal di pour mu ñëw remplacer ki nga moy donc ki di Onana mi dem du côté de Manchester United te mbir mi ngi. yemb jëm ci nga xam nag mooy taxawaay gi ñu bëgg ci moom kii nag également di match bu woon démba <laughs> Barcelone Real Madrid gars yi boo xam ne nag gars nekkoon cinq à trois pour FC Barcelone démb nekk nag six à trois pour FC Barcelone mais nag gars waa waa Real dañoo ci nga xam ne mooy donc lii di également donc seen <laughs> match bi ak donc Ancelotti Ancelotti nee na <laughs> dafa mel ni gars yi ba may entraîné ma léegi mosuma gis juróomi bal ci chance bi nga xam ne waa Barça am ko dem daal <laughs> chance bu ko yéem la xamul li xew nag ñetti bal ci dara donc lu Barça donc Real Madrid tey nee naa leen waa waa waa Real yéen a ay keroog waa waa Barça ñoo ay waa Barça yëpp faral tey nag waa waa xam naa ñu naan man Barça laa faral mais garaawul ah, ah. <laughs> fi ngeen gis ni kii Tchouaméni fii ni mu tibbee tànk xam ne mooy donc kii di Gundogan ah donc daal dugg de marquage bu garaaw xam ne fii mënoon na am yow tamit mënu na carton fii ah. <laughs> daal gars yi waa Barça ñoo wax naan keroog match bi moom am na intensité waa Real tamit ñoom dañ doon wax ne ki nga xam mooy doon ah, ah, amul benn ruq buy sedd léppay tàng amul benn amical mais waa ji moo gën a moom nee na ki nga xam mooy aruqo ma joxee sama soxna <laughs> waaye loolu wax mu ne sa ñaa échanger sama soxna ngir nga jox ma rek sa sama yo loolu dama koy soog a dégg mu ci ba léegi saa maa ngi soog a dégg lu ni mel kii nag également di Oriol Romeu Oriol Romeu nag gars yi kii démb dafa ñëw écrasé milieu de terrain bu Real Madrid nañ d'accord rek waa Real te moom ki dana écrasé te tamit li gën a garaaw mooy waa ji daaw xiroon la nekkoon te aussi ba nekkee xiroon moom mu nekkoon homme du match contre Real de Madrid gars sax ñu ngi naan tax <laughs> waa Barça jënd ko ndax match bu rëy bi daaw Real dem leen atomiser leen ñoom ñëpp daaw tamit si milieu terrain donc contre Giroud moom lañ joxoon aussi homme du match mu ñëw daal gars yi <laughs> defaat ko waa Real démb ko en tout cas démb moom lañ joxaat man of the match homme du match moom lañ ko jox donc parce que encaissé wul mais également def na ay arrêt yu décisif ki nga xam mooy Ter Stegen démb moom Thibaut Courtois moom dafa mel ne doon seetlu ci moom le gardien belge bien entendu dafa mel ne dal daal yep dal amul won fenn fo xamne dal ki na hein sedd na ci mom fep tangone fi mom donc kii également di Fermin Lopez ay booy bi ah, donc booy bi aussi comme genre gavila ah, donc formé à la Masia nek pivot bo xamne ne booy bi démb wane na boppam moom daal fi ne mom dal mo nangu place ki am moy mooy caissier ak match bi mu def euh, demb Fermin Lopez donc dougal bi bu extraordinaire ngeen gis ko ci natal bi également mu nek un grand fan de Lionel Messi moom itam ben Gavi bu ndaw donc moo ko moo tax démb ba match bi jeexee ñom gavik ñom Pedri dañu ñëw dal di koy. donc encouragé ki li nga xam ne mooy taxawaay bi mu daal di woon am foofu noonu Sadio Kay zone magnifique maanaam nag gars yi démb tàggatoo na démb ci hôtel ba ñi nga xam ne mooy donc ay anciens coéquipiers am désormais ñi nekkoon du côté du Bayern bi daal tàggu na leen jël a a doon visite médicale ko gars yi waxee woon donc nag euh, mu nekkoon dernier match euh, donc Sadio Mané ah, yi doon bu leen ko jënd ñi ko jënd pare nag xaw ngeen ko sol ba léegi nga ah, bu fekkee defoo leen ci moko sadio mané nak donc day dem du côté deux al nasser al nasser gaay lim proposer sadio mané donc déjà ñom dañuy fay bayern entre euh, dañuy fay bayern entre 25 à 30 millions entre 25 à 30 millions là parce que mën na nek moins de 30 millions également mais aussi sadio mané mom dañ koy fay 50 millions mu nek gaay nak 32,779 32 milliards,779 millions ak lu toftal ci xaaliss donc lool nak moy nek 50 millions mais 50 millions dafa 40 millions xam mom lañ koy fay annuel 40 millions ñu koy fay annuel donc mo donc c'est 26 milliards ah milliards mais buñ ci boolee yëpp donc maanaam Sadio Mané trente deux milliards lañ koy fay léegi prime nag bu gagné ay donc da ci am ay prime yooyu prime mooy toll ba dix milliards ba dix millions plutôt d'euros donc au total Sadio Mané jàppale ne brut dina am dina ko jege dina jege 26 milliards mais également dina am li nga xam moy donc yenen euh, milliards yu dugg mu nek donc 32 milliards au total bu Sadio Mané Soleil maillot nga donc Al Nassr gars yi mo nekkoon nag information ñoon bëggoon joxam c'est toujours un plaisir de vous servir woy di like woy leen di abonné nan ngeen gis également transfert Sadio Mané bi li ñu et tout on avance ensemble jaa ngeen